asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokku internet yi eh, téléspectateurs yi nga xam ne yéenay safoo la TMS bi ñu am mbégte ak kontaante di ànd ak yéen ci seen chaine de télévision bi petit matin émission thématique émission thématique liée à l' lactualité l' nga xam ne nag euh, elle est dominée par euh, le président de la République son excellence Macky Sall dégg ngeen ko keroog samedi mu ne euh, tànn na nag la nit ñi doon xaar. ay at di ko xaar ay weer di ko xaar ay semaine di ko xaar ay bés ah information bi daanu la mooy lan mooy euh, ki koy wutu affaire bu ma déggee wutu maanaam ci candidature mais ka koy wutu ëllëg yàlla rek moo ko xam kon nag euh, du ma sori ci présentation bi Matar laa ànd ak ci émission bi di nuyu sëriñ bi di ko jox wàccuwaayam le PDG de la TMS TV nga nuyu ak téléspectateur lay seetaan. Euh, jërëjëf doyen ñu ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal jàmm ak tawféex waaye di nuyu euh, le maréchal le PDG El Hadj Thierno Moule Sow king of the king king all the king le roi médecine traditionnelle du monde di nuyu soxna madame Sow ren di nuyu Rahman ak Rahim di nuyu mule mule yëpp national ak international. di nuyu Sénégal gi yëpp macha allah di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp di leen ñaanal jàmm ak taw tawféex doyen. waaw euh, information bi mooy ni ma ko waxee léegi rek li ñu doon xaar ay at. ba ko journaliste ba laajee question ne ko ndax di nga def troisième mandat mu ne ko nii wii nii non. nii wii nii non boobu defe naa ne am na am na ñeenti at. bay dugg ci juróomi at. ah mu toogaat ba ci yàgg am na ñaari weer mu ne. du ma dem du ma def troisième mandat. ñu ne ah kon nag boobu leer na waaye ban moo des kan lay tànn ñu naan diw la ñu naan diw la naan diw la ñu naan diw la am na nag koo xam ne nii wax dëgg yàlla euh, presque dafa meloon daal kan euh, image am dafa fësoon trop muy le premier ministre l' actuel premier ministre Amadou Ba. moom la moom la président de la république tànn mm, pour mu maanaam dem nekk représentant candidat aux élections présidentielles d' abord yow nan nga gisee Amadou Ba boobu ñu tànn. waaw ni ma ko gisee. Euh, yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko tawféex ba mu mat li nga xam ne moom la ko président de la république di doye ndax defe naa ne Amadou Ba ku ne gis na taxawaayam ci Sénégal ku ne gis na tamit euh, liggéeyam ci biir réew mi vraiment ah, man de yéene naa ko ko te wax dëgg yàlla tamit jàpp naa ne tamit jàpp na candidat bu mat candidat mm-hmm. ndax defe naa ne euh, ci Afrique defe naa ne benn premier ministre raw ko ci li ma gis ci li nga xam ne moom la jot a romb fii ci biir réew mi ci Sénégal def na fi ay liggéey yu am solo kon donc bu ko président tànnee jàpp naa ne tànn na ko mat a tànn aussi waaye tamit may euh, waxaat rek ne ñun moom xamaguñu ba tey fu ñuy teg suñu tànk parce que à chaque maanaam euh, askanu Sénégal ba tey xamaguñ fu ñuy teg suñu ah, tànk. xam nañ fu ñuy teg seen tànk. <laughs> non xamaguñ ko parce que xam nga dañoo nekk ci guddi goo xam ne bët bët bu setagul la. parce que vraiment wax dëgg yàlla tey euh, population bi mënoo xam fu ñu far dañuy daan tey kii la suba ñu nekkee la. maanaam gëm-gëm bu daal seen far moom xam nga kañ lay leer waaw buñ ko fësalee kañ lañ koy fësal mooy buñ duggee ci mbañ gàcc gi tànn ka xam ne moom lañ bugg a foofu rek nga ko mën a xamee très bien kon fi ne nii mooy guddi koo xam ne nii bët gi setagul mhm. ci loolu laa nekk mën nañoo tànn Amadou Ba waaye la Sénégal def kenn xamu ko waaye wax dëgg yàlla tànn nañ ko mat a tànn de parce que mhm. Amadou Ba moom wax dëgg yàlla liggéeyam rafet na ci biir Sénégal waaw kon nag bu ko président tànnee kon war na ko tànn. te defe naa ne am na ñu bëri ñoo xam ne it ñu ngi ci ginnaawam vraiment di ko jàppale tamit wax dëgg nga dafa am ñoo xam ne dañ bëggoon. Boun Abdallah Dionne. Hmm. ancien premier ministre. Hmm. déggoon nañ ko fi ci candidat yi. Hmm. Ablaye Diouf Sarr seen mbokk. waaw dëkk Yoff ancien maire ancien ministre de la santé. déggoon nañ ko ci. déggoon nañ fi tamit Aly Ngouille Ndiaye bi yoroon agriculture te nekkoon ministre de l'intérieur déggoon nañ fi daaw Daouda jàlloo mm. nekkoon ministre de l'intérieur moom tam ak ñeneen ñoom Mame Boye Diaw en tout cas déggoon nañ fi daal ñeneen ñoo xam ne aussi tamit mm. ci mouvance présidentielle lañ bokk déclaré woon nañ ne dinañ bëgg waaye ci cëppaandaw ba bañ tànnee Amadou Ba mm. am na koo xam ne ci ñoom génnagum na ne ànduma ci tànn bi d'ailleurs sax damay génn ci gouvernement muy Aly Ngouille Ndiaye di doomu Jolof bi tey loolu mu ñuy wax ci loolu. waaw li ma ci mën a wax euh, du du bari lool parce que defe naa ne tey euh, yat yi dal na foo xamante ne xëy na peut-être ñu bari fooguñu ko woon ndax defe naa ne comme ñu ngi fi lim ñii ñëpp ay lañ te ku ci nekk tey yaa ngi taxawoon position bi nga xamante ne moom la euh, Amadou Ba taxaw. parce que ak ñeneen ak ñeneen sax ñoo xamante ne xel day faay. Hmm. mais suñuy xel ak suñuy xalaat ak ci ñoom ñoo xam ne xalaatoon nañ ne tey ji président mën na leen a teg. waaye tey ki mu teg mooy euh, Amadou Ba loolu nag dogalu suñu borom la ndax comme ni nga ko waxee woon laa fois passée nguur njiit yàlla moo koy sàkk nit du sàkk boppam. waaw Aly mi fippu nag. mais Aly Ngouille moom bu fippoo xam naa ne day ber <laughs> parti boppam te ragal naa ne boo moytul Macky Sall tamit APR attention dañoo am doole ci réew mi de te ku Macky ne yow ñoom dañ naan mooma bëri na nag ay jiixi jaaxa parce que faw loolu mënul ñàkk parce que ndaje moo gis saa ñu sàkkee njiit tënku ci li Macky sàll wax. wala am na droit Macky bu nekkul moom tamit moo ne ne moom tamit bëgg na. waaw loolu lépp mën naa nekk waaye xam nga mbooloo day doole. defe naa ne julli mbooloo moo gën julli kenn te defe naa ne fi ne nii bu génnee APR defe naa ne ñi koy topp dina néew lool parce que tamit Macky ki mu tànn. macha allah ki mu tànn neexut a bañ de. ki mu tànn neexut a bañ moom nag bu fippoo ba génn boppam la koy def parce que dina ñàkk diis ñàkk les sec. parce que diggante bi euh, li fi des bëriwul te balaa mu fee dajale menn mbooloo mi wala yenn militants yi pour ñu topp ko du yomb waaw ak tamit lan la def ba nit ñi war koo mën a topp bokkul ak ki nga xam ne dañ koo jox ay lenge na ko doxalal njiit nag moom yàlla moo koy sàkk waaye nag di nga nekk ci bërëb tey ba jékki-jékki xëy ñu ne la ah lenge yii kat jox nañ la ko mais su boobaa du ñëpp lay neex am na ñu muy naqari mooy comme Aly Ngouille Ndiaye li ko dal nii. li man nag su ma doon moom damay nangu dogalu suñu borom. ànd ak Matar Ba euh, euh, Amadou Ba di moins liggéey liggéey bi bu ko defee ëllëg at si biir leneen mën na caa law ba teq ko lu ko wóor ne tey euh, Amadou Ba tey bu nekkee président est que du ko def premier ministre dara wóor ko ci. xam nga leneen ak leneen nangu dogalu suñu borom daal dafa am solo. waaw te defe naa ne ñàkk a nangu dogalu suñu borom moo ko nar a yóbbee lii te su boobaa tamit da ngay sonn jaaxle rek. waaye du tere suñu borom moo ko dogal waaw non parce waaw xam nga Macky <laughs> Macky moo tànn. mais xam nga yàlla tey buy dogal du du wàcc directement ak yow en face tey bu amoon loo xam ne da ko tey jii waaw kay tey jii am na loo xam ne tey yàlla mën na ko jaarale ci doyen mi nga xamante ne tey peut-être influencé na ma. ma dugg ci li nga xam ne mooy journalisme. waaw ah voilà léegi tey doyen boobu tey mën naa xëy tey hmm. daan na ah noo Matar tey kat yaay def palaato waaw est-ce mais est-ce def palaato waaw est-ce que par <laughs> exemple est-ce que par exemple tamit Aly Ngouille xam ne yàlla gëm yàlla ak dogalam xam ne yàlla rek mooy maye mu ne du dem di bootu ci ni naa dem man tam tàllal sama loxo yàlla. waaw loolu nag bu ko defee man xalaat naa ne dina métti ci moom. ah parce que diggante bi moo gàtt. xam nga moo tax ma ne la Macky Macky neexul neexul waaye du cuune de Macky ndaanaan la de xam nga diggante bi mu ko defee ba ber daara matul ñetti weer de waaw dëgg la àddina bi wuy si ko waaye ñetti weer nga wax xam nga ñetti weer lu ne xaj na mais fii fii nag xam nga ñetti weer mën nga cee campagne fii des na juróom ah, ah, la mais xam nga Macky te ñu ci mois de septembre mais xam nga Macky bi muy daj bi muy maanaam bi muy samp ndëndam jamono boobu fekkoon na sénégalais yi sonn fekkoon na Sénégalais yi jaaxle sonn non fi mu ne nii sonn nañ mais moment bi boobu dafa fekk sax non attends boobu dafa fekk sax ay ay ay affaires yu garaw am fi ci suñu digganteeg Ablaye Wade troisième mandat doo def troisième mandat di nga ko def doo ko def xam nga yooyu noonu daf fi daf fi nekkoon mm-hmm. kii nag dafa ñëw ne man defuma xam nga déjà libéré na askan wi yeewi na leen tey xëlëf xëlëf ci Sénégal yi nekkee woon. yëpp yeewu na askan bi mais am na am na kum tënk de koo xam ne nii nit ñi amoon nit ñi joxoon nañ ko nopp de. waaw mais kooku tamit ki may wax. waaw xam nga yàlla tey hmm. maanaam comme niñ ko waxee am na ñoo xam dinañu yegg am na ñoo xam ne ñu yegg gunge boo gis am na ñuy yegg waaye am na ñu dul yegg hmm. xëy na moom tey gunge na Sénégalais yi ba fii yàlla waxoon na ne moom kat eh, lépp lu mu mën a sumb tamit fii lay yem ci benn weer li mu liggéey lépp ci benn weer la yàqu ci benn semaine ci benn bis ci benn saa te xoolal li mu li mu mobiliser ci àdduna bi yëpp partout dans le monde foo toog ñu naan Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu jógee Sénégalais yëpp jóg topp ko waaye xoolal tey nga xëy jóg yow kese sa jubbu bopp yow kese yaa jóg waaw waaw mais xam nga fi mu ne nii moom waxagul waaw tey moom mu ngi ci loxo waaw moom mënagut a wax eh, waaw dama ne mhm. tey moom bu jëfoon déclaration nag ne jàppale leen diw koo xam ne ci opposition bi la nekk est du am waaw loolu yëpp mën naa nekk mais tey jii tey moom yow tey bu doon jàppale kan nga xalaat ne lay jàppale parce que boo waxee ñu ne mi da koo wor soo waxee ñu ne euh, Khalifa Ababacar da koo wor. non mais am na ñu nekk ci ëpp ay ñoom Abdourahmane Diouf ak ñooñu. ñu ngi ci ba tey mën na ko wax mais fu mu koy waxee ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak moom ah. mais mais loolu tey mën na ko wax mais fu mu koy waxee ci ban télé. ah non question télé mais xanaa xamoon yow fi fi mu toog bu defee déclaration nit ñi dégg ko. waa parce que déjà ñaa ngi dem di ko gis waaw mais xam nga loolu yëpp loolu yëpp mën na nekk mën na ko def it mën na ko def tamit parce que tamit askan wi tamit boo dee xool wax dëgg yàlla du lépp rek parti pouvoir ñoo ñoo ñoo téye Sénégal waaw ko mel ne Ousmane Sonko am na doole lool te am na ñoo xam ne aussi jàpp bi ko jàpp nii am na ñoo ko sotle de waaw am na ñoo xam ne dinañ ko le ah, waaw loolu yëpp tamit ah, defe naa ne ah, gars yi tamit sóoraale nañ ko parce que moom rek mu nekk ci kaso bi taxul tamit mu mu bañ a ku mu jàppale il fallait mu am ku mu jàppale parce que bu jàppalewul képp kenn day gën a lor boppam rek man jàpp naa ne am na ku mu war a jàppale parce que xol waaye waxagul nit nga mun jàpp waaw mais li ci xol yi munoo ko jàpp mais fi mu ne nii tamit ragal naa tamit ñi ko war tàllal loxo est ce que tàllal nañ ko loxo parce que ragal nañ ñoom it ñu tàllal leen mu tàll ñu tàllal ko loxo ñoom it ñu ñu kii leen. ñu def ko comme ko ñu ngi koy tàllal dégg leen tout le ñu def euh, ay manifestation ñoom Abdourahmane Diouf waa M24 waaw waaw ak yéen ñoom dégg leen tout le waaw waaw ñoom tout ñoom tamit waaw ah xalaat naa ne mën naa mu jàppale leen tamit mën naa nekk hmm. mais daal xam naa ne daal njaw des na xambin daal waaw loolu moom xam naa ko moom voilà donc pour rappeler que samedi dernier le président de la son excellence hmm. Macky Sall euh, le candidat sortant a fait une déclaration pour rendre public le nom du, du prochain candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar mm. en la personne du, de l'actuel Premier ministre Amadou Ba. Pour rappel, il a été directeur général des impôts et domaines, nekk en 2014 ministre des Finances, mu jóge ministre des Finances après dem ministre des affaires étrangères après nag ñu génne ko ci gouvernement bi mu toog presque deux ans nekkul ci gouvernement bi ba ñu indiwaat ko au poste de premier ministre le 17 septembre. le 17 septembre bii. des na juróom-ñaari fan. ci lay am un an. à la tête du gouvernement du Sénégal. donc presque def na fa at. Mm. parce que boo xoolee. ba ñu màggalee ba ca suba sa lañ ko faloon premier ministre. te màggal nañ. boo xoolee at tubaab. dafa am décalage. dafa am décalage mais septembre lañ ko nommé woon. Hmm. kon nag moom mooy mooy wutu Macky Sall comme nekk candidat. Hmm. ndax fii ak ñuy dem élection dina fi am ñeneen ñoo xam ne nii jombul. daañu fipp ne àndu ñoog moom wala dina am ñoo xam ne nii àndu ñoo moom waaye dinañ ñëw ràlliwoo ci moom mm. loolu yëpp xam naa ne dinañ ci xam dara dans les prochains jours ou bien dans les prochaines lan ngay tàggoo Matar waaw li may tàggoo di ñaan réew mi jàmm am fi mm-hmm. waaye di ñaaw ñaan tamit aussi ñi nga xamante ne ñooy woy politiciens yi ñu gëstuwaat askan yu baax a baax te bàyyi leen xel te xam ne réew mi tamit wax dëgg yàlla ñun ñëpp ko bokk kenn mënu koo omelette di ko jëfandikoo dañ koo war a mën a may nees rek ku ne capp daal di diw ci sa mburu bu ko defee jàmm ne ñooy ndax loolu mooy li nga xam ne moo war a mën a nekk waaye li may tàggoo it di ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi yàlla fëgg seen bopp bañ dellu ci seen njaboot waaye di ñaanal ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw sunu borom génnee leen fa delloo leen ba ñu gisewaat ak seeni njaboot ñi nga xam ne dañoo néew doole dooley poos sunu borom def ci poos yi dara ba ñu am lu ñu yóbbu seen borom kër di nuyu la le PDG alaaj Thierno Moulay Sow king of the king king all the king le roi médecine traditionnelle di monde di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaye di ñaanal presse bi yëpp di ñaanal caméraman yi di ñaanal techniciens yi di ñaanal journaliste di ñaanal ñëpp jàmm taw féex di ñaanal njaboot gi yëpp wasalaam jërëjëf Matar loolu lañ leen indiloon tey seen tempo du matin lié l'actualité l'actualité qui est dominée par le choix que le président l'a a porté sur l'actuel premier ministre Amadou Ba pour être le candidat de la coalition benn Bokk Yaakaar pour les prochaines élections du 25 février 2024 c'était le rendez-vous pour votre émission thématique Petit Matin ñu leen jox rendez-vous beneen yoon sur la chaîne de télévision la TMS TV jërë ngeen jëf